Hum. Dans le cadre de la formation continue de ces volontaires, le comité départemental de la Croix-Rouge de Kaolac organise le samedi 11 janvier 2020 à partir de 16h30 à son siège une cérémonie de remise diplôme à 105 secouristes classiques des 86e, 87e et 88e promotions et en comme marraine Madame Adiratou Ndiouk présidente nationale des FAPS et conseillère économique, sociale et environnementale. À cette occasion, un en hommage sera rendu à M. Abdoulaziz Diallo, président sortant de la Croix-Rouge sénégalaise et actuel vice-président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et à Mme Bafouba, présidente nationale de la Croix-Rouge sénégalaise, qui rehaussera de sa présence personnelle cette cérémonie qui sera présidée par le gouverneur de région. Mboki Kaoulak ak Moki Sénégal comité départemental Croix-Rouge Nodiap. No Diap, jàpp samedi fukki ak janvier 2020 16h30 jotee fofu sa siège am ngir amal cérémonie de remise de diplôme yu ñu jagleel téeméer ak juroom secouriste classique yu 86e 87e ak 88e promotion am ah, mbokk ñu né nak kan lañu tan ngir def ko mareenu bis bu mag bobu moy jigen ju mon góor koku nak mom moy Ajaratu Ndiouk mbay di présidente nationale FAFS di conseillère économique sociale et environnementale lutax ñu tan ko ci 90 pour cent jot seen diplôme yépp ay jigen leen ba tax mbir mi ñu né nañ ko dello ba jox ko Amboki, jojé ah mbokk yi ñu ne nag tamit dañ ci sargalalé monsieur Abdou Diallo mi fi président Croix-Rouge sénégalaise jamono ji muy vice-président fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge ñu né ak kan madame Bafouba di présidente nationale bu Croix-Rouge sénégalaise dana ñëw ngir darajaal bis bi ci téwayam ki koy président moy monsieur le gouverneur de la région mbokki Kaoulak, mbokki Sénégal bis Nono, samedi 11 janvier 2020 bu 4 heures tegaray fanweeri simili foofu ci siège Croix Rouge bu Kaoulak, ñew leen fekke ci téeméer ak juroom secouriste yi nga xamanteni formation bu war ci lañ leen defal 86e 87e ak 88e promotion